leen gërëm bu baax a baax di leen ne dugg nañ ci deux mille dix neuf mboolem nit fu waay nekk yaa xam li nga bëgg sa kër àdduna yenn na ko yàlla fayal xam wax wàllum liggéey wér-gu-yaram lépp daal te mu doon lu baax am njëriñ ci société bi yal na ko yàlla motal yàlla mi dërëtewul mën na ko te dina ko def bu soobee yàlla tey jii dama bëggoon ñu waxtaan ci le cas de waaw Assane Diouf laa wax de xam naa am na ñenn sax suñ déggee ma naan asan Diouf sax dañuy tiit euh, ndaxte asan Diouf def na fi lu ne xam naa ne Sénégal ñëpp xam nañ kan mooy asan Diouf newoon na fi di fi saaga ñu ne asan Diouf nii asan Diouf na le am fee problème ba ñu tëjoon ko fi. moo tax nga Sénégal def du rek c'est-à-dire gis nga nit ku même bu fekkente da nga am problème du n'importe comment nga mën résoudre sa problème damay joxe benn exemple si par exemple le Sénégal ce que voulait faire sa loi du baax ku ne bu bëggee meru boppam rek du baax kon dëkk bi du avancer. ay problème rek lañuy dëkk te defe naa ne l'erreur erreur bu daloon Assane Diouf mooy defe naa ne ay conseil am ñi neewoon ci ginnaawam ñi ko doon dooleel xelaluñu ko euh, ndaxte booy def yii nii waaw ndox am na ñoo xamante ne yooyu daleen di neex ñuy seetaan vidéo bi ñuy dégg ngay saaga saaga yu métti ngay wax nii dañ naan waa mais gaañ bi am na fit gaañ bi fu lu xew ba muy wax nii nii en fait les conséquences duñ ko xool de mais après la ñuy analyser ne dans ces insultes là il y a des conséquences graves même graves defe naa ne Assane Diouf bu ñu ko dugalee prison gisuma kenn marche ci kaw ci mbedd bi naan libéré Assane Diouf amul benn sénégalais bu génn si ne day marche parce que dañoo tëj Assane Diouf waaw amul mais bu fekkonte ne li mu ñaxtu su ko ak ak yoon ndote dina am ñuy de mais dina am ñoo xamante dañuy révolté ne libéré Assane donc li may ñaan bépp sénégalais sooy wax na nga xam looy wax sooy def nanga xam looy def parce que gis nga dëkk bi loi moo fi am de du luwaay jóg rek lu neex wax ngay wax lu la neex di def lu la neex déedéet dafa am ay charte am ay loi

xeyna man ma def ko ne ko ma asan juuf def nako ko kenn waxu ko dara man dama koy def xey kuma ma dara wala kep ko xamantene ne neexuma rek def na ma lo lu ma métti rek ma def sama video, saga ko wax lu ko neex kon nak sénégalais yi da ngeen wara jël exemple ne li ni asan juuf def baxul kon nag man su ma ko waree def dinaa xalaataat bu baax parce que li mu subir foofu kenn xamu ko de moom rek a ko xam parce que il paraît il a perdu ses facultés mentales te xamuñu ah. xamuñu ndax da doon subir foofu noonu ay torture wala leneen wala xalaat yee bëri woon on ne sait pas parce que on n'était pas là-bas avec lui mais lenn daal laa leen mën a wax ni Sénégal yar ak teggin dafa baax trop. gis nga nit ku nekk yar ak teggin sax dafa baax tey jii nii damay jël exemple bu ndaw boo duggoon si bis rek saaga ndey rek dañ daa daal di qualifié ne la kii de moom ay waajuram wala yarinam des na sagantuma nag nga nga nga def say vidéo nag Sénégal yëpp di la dégg ak àdduna yëpp di la gis ngay wax lu ñaaw defe naa ñun ñëpp ko gisandoo woon Assane Diouf ñun ñëpp ko doon déggandoo dëkk bi lu moo fi am de du lu waay jug rek lu la neex def déedéet kon Sénégal tas barki yàlla bu doon ku nekk nit ku nekk rek loo xalaat rek jóg rek saaga di commencé wax lu la neex di wax lu ñaaw si kilifa yi si ñu ne kon Sénégal tas ndax ki ngay saaga noonu am na ay waa kër de waaw kooku tamit mën na mer jóg tamit di saaga comme ni ngay saaga keneen ak keneen di ko def kon nag li ma leen di ñaan mooy. nañu dalal suñu xel yi dalal suñu xol yi ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ko moom nit ñëpp ko bokk ñu xam ne réew mi tas ko yombul ndax lu fi suñu mambaay moo diis te def na naan bépp sénégalais xam na ne ku ne Sénégal ne teranga man je suis fier d'être sénégalais. je la dis haut et fort ndax damaa xamante ne Sénégal jàmm bi fi am hmm, amul feneen de man loolu laa gëm de nii jàmm bi am Sénégal amul feneen kon nag ñun sénégalais ak yeneen sénégalais nañu jël exemple ne. Assane Diouf li doon def baaxul li mu doon def baaxul te di leen ne defar sa àdduna aka moo métti mais lu yàq sa àdduna lu ndaw la lu yàq sa àdduna lu ndaw la te ngeen baal ma àq bu fekkente ne wax kàddu yi ma si wax dafa am kàddu yu débordé ndax wax moo neexul nag wax moo neexut waaye kenn ku nekk maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm Sénégal yépp euh, di leen ne nañu wàccee xol yi ñu bokk benn ndax Sénégal ñun ñoo ko moom réew mu teranga la te kenn ku ne mën nga fee bay sawaar kon yàlla na fi yàlla saxal jàmm